14 février bi bésu cofeel baa ngi bés bi tax fu tollu saxoo naa la jaaraw rek bés bi tax fu tollu saxoo naa la février bi bésu coofeel baa ngi bés bi tax fu ñu toll saxoo naa la jaaraw lakk. bés bi tax fu ñu toll saxoo naa la jaaraw lakk. ah février bi. bésu coofeel baa ngi bés bi tax fu ñu toll saxoo naa la jaaraw lakk. Ah? ñu ngi lay nuyu la dalal tey bi nga xamante ne moo di 14 février bi. soxna Aida Saliou Thioune woote wu ko waaye terewul taalibe yi ñëw en tout cas euh, cant ci ñoom ni ñu ko yëgee la ko dalee ci jàngum alxuraan ba ci xasaay bi ni nga ko gisee waañ wi euh, tey lan mooy sa sentiment tey loo dundee bis bi. maa ngi nuyu ñëpp di ziar mbokk taalibe yëpp mboolem waa Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni biir ak biti réew. di santaat sëñ Béthio bu baax di kontaan soxna Mbaye ci dalal bi ni ñu ko waxee rek di félicité ñaari mbokk taalibe yi fi jaar ci xaside yi di bisu mbégte bisu bànneex mooy bis bi nga xam ne sëñ Béthio ci la waxoon sunu sang bi yaay man maay yow jàpp ci yow mooy dëgg-dëgg jàpp ci man kon bis boobu maanaam bisu cofeel la ci ñun bisu cant la ndax bisu transition laa ko tuddee ndax moo ñu boole ci tawféex gi tey di yeesalu sëñ Béthio bi kon tey dañuy lu santaat sëñ Béthio santale ko soxna ayda sangam bi nga xamni mom leppam seigne sëñ la seigne Béthio leppam bi seigne salim kon ñi ngi santat seigne salim bu baax ci bis bi waaw xam naa ne bés bi euh, jëwriñ yi fi jotta a jaar ñoom universel sëñ Sall Samb du ma lim da buma limé damay jum ñi fi jaar bari nañ waxtaan nañ ci dayob bés bi ci ñin ñi nga xamantene ñoy tanta ko ni waye ñu ñu tam faram bu gis jigen euh, ci ci di melni kuy jangalé ci yoonu l'islam fàkkuk ak yoon diko doxal jité tey loolu lu muy lu lu muy tekki. waaw ñun li njëkk xam nga loolu moom xam naa dey lu xaw a lu ñu yàgg a waxtaanee muy lu xaw a sensible ci lislaam waaye ñun sunu taalibe d'abord mooy li sëñ Béthio def rek neex nañu ndax ay dogal maanaam dogal la yoo xam sëñ Béthio ko def te ku ne xam na ni yoon murit sëb sëriñ lépp lu mu dogal da lay neex kon ñun ak cant gu rëy lañ ci amal sëñ Béthio mooy lii mu def mu neex ñu loolu. léegi nag boo weesoo lool ci l'islam mooy ni ko professeur yi waxee rek ñu may wax naan conférence yi yàgg nañ leen ci inter interpellé ndax euh, sëñ Sall da koo mos a wax nee na soxna Aida deful lenn la nga xam l'islam dañu koy da ko day tere jigéen jiitu ci ñun lim ñu jiite mooy liggéeyal sëñ tubaab yi mooy togg ajjuma yi mooy xasida yi ainsi de suite mën naa lim la liste et loin de d'être exhaustive kon dama koy joxe ci misaal benn bis dama ko mos a wax fu ñu ma invité woon ma waxtaan leen lay wan ni fonction wu ak eh, manam njit ci l'islam ci imam ci waxine dang ko ben jangale rek nga ci jël moy seigne Béthio ku ne xamna ni seigne Béthio seigne Saliou ko jox ndigal muy nangu ñeebal ta pourtant bu julli korite jotan julli iti tabaski wala korite da ko yónni imam mhm. imam bi da koy jité mom seigne Béthio su paré taxaw khutba imam bi tok ci suuf seigne becho tok ci kaw ñaari fonction yi bokul la seigne moy nangu ñeebali imam bi moy jité julli bi kon mhm. lolu dang ci jang ni seigne becho neena xawma dara ci alcorane lu waaw ndax neuf moo tax ñu koy yónnee imaam waaye nag nangu njëbbal moom sëñ Béthio ko def ndax sëñ Saali ko investir kon ñaari fonction yi bokkul la je pense que loolu rek day day gudd mënuñu ci développé trop waaye lool rek laa doon wax ni benn leeral bu ñu ci amoon buñ ci sànni la rek mhm. ndigalu sëñ Béthio la te neex nañu lool ndax gis nañ ni ni mu yokkee taalibe gi jëf yi yokk nañ togg ajjuma yu yees peq feeñaat na ak soxna Aida mooy li ñu bind rek ci tableau bi leer na ma ni ko ànd ak moom liggéeyal sëñ Tuubaa te loolu firee ko ne àdduna yëpp teg nañ ci seen bët je pense loolu rek benn waxtaan booy xam mm-hmm. booy wax ne jigéen yàgg naa doon njàmbaar ci yoonu murid di ko indiwaat ba ci euh, Seydatuna Aïcha euh, tey ndax mën ngaa ñëwaat ci ci ci wax jooju waaw Seydatuna Aïcha ku ne xam na ni alayhi salaatu wasalaam nañ ko ni ko yow kan nga gën a bëgg sur ki nga xam ne mooy référence bi l'islam ci moom la wàcc mu ne Seydatuna Aïcha ah ñu ni ko léegi ku ci toppaat mu ni bàyyu Aïcha mooy Seydina Aboubacar waxul Aboubacar de mais bàyyi Aïcha ndax Aboubacar sax turul tuddul woon noonu Aboubacar mooy bàyyu jànk bi kon nga xam jigéen ni mu taxawee ci lislaam ci ay charte ay xare yoo xam mën nga ko indi ne xam na ni bi fi alayhi salaatu wasalaam jigéen jigéen li mu ratifié Aïcha li mu mokkal Seydina Aïcha li mu mokkal ci ci ci xaddis amul ku ko mokkal Aïcha am na xeex bu amoon la guerre du Chameau jiite na ay ñoo xam ne ñi ngi ci ay ay saaba lañ yoo xam ne yonent bi gërëm na leen asratal mubashar dix yi nga xam ne dañ leen may àjjana am na ñaar ñu ci bokk Talhat ak Zubair Aïcha jox na leen ndigal ils étaient sous l'ordre de Soxna Aïcha kon yooyu yàgg na ci taarix te yonante bi bi muy waxee julliti seen xaaju diine na ngeen ko mokkale soxna su xees yi sa na Aïcha muy ñetteelu am soxna Aïda tamit di ñetteelu soxnaam te Aïda boo xool mooy Aïcha olof ya ko yàq moo tax soxna Aïda dafa taxawaaye taxawaay boobu comparaison nag n'est pas raison waaye ci misaal rek ndax sa yonante bi ñaare la mi ngi tuddoon Sawda moom la olof naan Sawda Aïcha moo doon ñetteelam sëñ Béthio ci waxin ci ci ñetteelu soxna bi mu denc mooy soxna soxna Aïda muy Aïcha te je pense que taxawaay boobu la taxawee ci ci ci liggéey bi muy nga xam ni sëñ Béthio ko ràng du bokkul ak yëfi aada ak cosaan gi déedéet liggéey bu mu bu mu jël la dénk ko ko te nee man la ko sëñ Saliou jox te dénkaane ki la soob maye ki la neex jaay ki am njëg te nee soxna Aïda mii laa wóolu tay dogal la du du du Pastef du dara way dogali seigne Béthio rek nañ ko jappé taxaw na taxaw gogou tay maté nako ba wa maté nako ndax liggéey bi fim ko sanni xoola togg aljuma yi am nga tay 14 février lañ wax ndax bis bu ne lam lamu jur ngay xol ci bis ba xeyna na ci sayer am nañ koy fété jappé ko Saint Valentin ci waxin waye xoola soxna Aida ni mu dundalé bis bi tay ci berne ci ci jang alxuraan ci xaside mbokk taalibe yi def seen kër ku ne invité say dekkono te mu la fekk ci safane ndax 14 février rek buñ ko waxé amna ñu ni fête de l'amour ñi ni fête la pour manam ñi ñi mo yalla amna ñu koy tuddee non waye sëñ Béthio dimbali la ba tey nga nek yendu ñuy wàccee limu kamil ci kër yi fi ak ci mbokk taal biir ak bitu rew di def doli concours xaside yi def bernde waxtaane Serigne Touba waxtaane sëñ Saliou lolu je pense que c'est extraordinaire ndax contexte que tu dama ni euh, mbir wala bis balaa muy am sens nga xol contexte bi mu wàccee 17 avril bi nga xamni bisu sëñ Béthio la bi mu wàcc contexte deuxième guerre la won

ci nii nga xamante ne moom la ko doxal doxalee di leen jox rek dig daje ci yeneeni jotaay yoo xamante ne notamment togg vendredi nga xam ne chaque vendredi dañ koy amal fii kër Soxna Bambi Soxna Aïda Saliou Thioune dëgg dëgg Serigne Béthio yàlla na fi yàgg tànd